ay jeu la ak Sénégal. amee ay postes yoo xamante ni bii ñi fa nekkoon nekkatuñu fa moom moo koy assuré du lu bees quoi moom moo koy assuré en attendant est-ce que euh, di mu koy assuré day day nekk ay quelques jours pour ñu jël ñeneen nommé leen teg leen fa walla ndax dañu bëgg a def remaniement ministériel. parce que bul fàttali ni démb amoon na information yu wax ni président Macky Sall gouvernement di combat bi mu bëgg te annoncé woon ko amagul. parce que situation yi soppeekoogul côté social bi dafa nërmeelu euh, ñi doon kaas di jàngat di jàmbat ñu ngi continuer di kaas di jàmbat donc xëy na li mu bëggoon ci gouvernement bi fi nekkoon amu ko woon malgré defoon na benn remaniement yaa ngi fàttaliku moo taxoon Yankhoba jógee télécommunication ñëw sport bu bàyyi Ali Sale Diop ak ñeneen ak ñeneen ci la euh, Ablaye Daouda Diallo demee palais de la République donc remaniement boobu est-ce que moom la ñuy waajalaat loolu loolu question la euh, mais actuellement situation bi nii aajuwul xootul ci jàngat parce que xam nga ni Amadou Ba gouvernement combat bi mu bëgg bëgg ko doxal comme ni ko Birahim waxee mënu ko boole ak élevage mun ko boole ak sport mais coow bi euh, nan la Idriss Seck defee ay calcul ba cette fois si bukki bi ko màttoon màkku màttu ko maanaam ñàkkul ba Diattara comme ni mu ñàkkee woon Omar Gueye ñàkkul euh, pour l'instant très bien ci précision bi pour l'instant ñàkkul Alé Sala comme ni mu ñàkkee woon euh, au Sarr donc loolu question la euh, mais li wértu wóor mooy ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk ci say calcule politique mun nga ci yow sa bopp Idi boo xoolee discours am euh, amul benn yoon bu mu araamale troisième candidature Macky Sall benn yoon toujours dafay dépendre ci conseil constitutionnel te yéen ñëpp xam ngeen histoire conseil constitutionnel ak képp ku fi nekk président ci Sénégal mukk du araamal sa candidature te problème bi mooy waa Sénégal ak majorité ci opposition bi dañu ni Macky mënta nekk mënta am troisième candidature moom da koo daganal ba noppi idi daf koo daganal ba noppi foofu la question bi nekk man ba léegi maa génneegul baare yëgoo libéral ci biir jeu bi donte won ni waa PDS wàccu nañu ñaar Aminata Touré mi leen teg li mu leen teg après alternance bi euh, wàcc nañu itam Idrissa sekk ci sorteem yu mujj yii ak li mu yàq Ablaye Wade ok alors Idrissa sekk ba tey buy yekk yàq Ablaye Wade musiba mais slogan Ablaye Wade lay doxee ba léegi alors moom moo nekkoon kon initiateur bi pour doxalal Wade wala dafa dafay wan Sénégalais yi nii Wade baaxul alors ci suuf joué wul loolu delluwaatal nga xool conférence de presse mu defoon Thiès. lépp daanaka ay ay ay ay slogan Abdoulaye Wade la indiwaat donc baare yëgoo bi mu ngi ci biir jeu bi mu ngi ci biir ñan lañu bëgg a damm seen ay laaf ñan ci opposition bi la ñu bëgg a damm seen ay laaf ñan la ñu bëgg a nala nelawal ci Sénégal yi foofu la question bi nekk mënoo mënoo ñàkk rafetlu politique gu nit ki Idrissa Seck mel ni bi ñu xamoon après 2012 bi mu génnee ci gouvernement bi radical di di di di attaqué Macky Sall guddeeg bëccëg ginnaaw bi mu ñëwaat ñëw ci ànd ak moom ci partem léegi idi question bi ñu koy posé mooy est-ce que moom bokk na ci bilan bu Macky sàll après ak duggam ñaari yoon ci biir gouvernement bi wala bokkul ci bilan wu Macky Sall foofu la question bi nekk beneen bi ci des Idrissa Seck buy wax ak Sénégal yi na leen bàyyi loo xel góor euh, góorgóorlu bi mu doon utiliser moom ni nañ leen xeex njublang te dooleel góor góorgóorlu moo njëkk exprimer loolu noonu nañ général nañ ko fàttali ni sénégalais boobu mu doon wax noonu jamono jooju 2004 xuma 2005 wala 2003 Sénégal boobu moo fi nekk ba léegi alors ci discours am na ngay gis ni mu ni bu ngeen ma falee baax na bu ngeen ma falu seen affaire la am naa sama ay bureau de travail Chine am naa ko États-Unis am naa ko fii am naa ko fee donc man am naa xaalis da ngeen may fal pour ma génn leen ci guddi gi ngeen nekk faloo leen ma it aw na ci bopp gouvernement bu Sénégal nekk premier ministre Macky Sall remplacé ko ñoom ñaar ñëpp ñu teggee leen fa indi bu Soumaré mais entre temps ñoom ñaar pour pourquoi Sénégalais yi jox Macky Sall plus confiance pour bàyyi ko fii mu moom mu xañ ma moom mu am mu ñàkk confiance boobu ci Macky Sall jékki-jékki amaat confiance boobu ci Macky Sall ba xëy tey di wax ak Sénégalais yi naan leen Macky mun naa am troisième mandat dogal bi jógee ci conseil constitutionnel à neuf mois des élections kenn xamagul tànk booy feccee waa Benno Bokk Yaakaar bi ñu jàpp ni mooy coalition bi ëpp ndax moo gañe woon ak gañe bu tuuti ci élection présidentielle ñu ngi moom wax ni moom mooy ëpp doole ci opposition bi loolu terrain bi finalisé wul loolu wanewul loolu euh, tey bu fekkee daga daganal tey xaar dogal bu bàyyi ko ci conseil constitutionnel am ñu muy delloowaat li renvoyé waat seen ay seen ay dossier ça pose problème jamono ji ñoom li Sénégal yi soxla muy ñu xam fan la Macky Sall jëm li Sénégal yi soxla mooy idi wax dëggantaan ak Sénégal yi nga xam seen loxo jotul seen ginnaaw wala fi ñu bañ indi calcul politique yi nga xamante ni bi fi nekk ci la nekk wax nga léegi Mansour ci kaaw Omar Gueye ak euh, ki nga xam ni moo di Idrissa Seck à l'époque nga xam ni euh, bi Idi euh, wanee gannaaw Macky moom dafa décidé rester ak ak Macky tey jii Yankhoba Diattara deful lu ni mel.